mbokk yi ñuy nii ba léegi ñuy wër waañ yi ñuy ci cinquième waañ toog ak Soxna Ndeye Ndiaye Soxna Ndeye maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar. di la màggal bu baax ci weeru koor bi di la balu àq bu baax baax. lañ leen ngeen baal yéen tamit. Mhm. tey ñu ñëw fii fekk si la ci cinquième waañ nga nekk fi jëwrin heure bi daaw ñu fekke woon ko yal nañ ko fekke ay téeméeri at ci kanam yàgg koy euh, màggal fii ci ngent ak ñoom Laay Ndiaye ak ñoom ñëpp. amiin amiin amiin ñëpp fekkee kenn bañ a manqué incha allah tey ñu fekk la fii ak say dëkkandoo ak say mbokk ak say njëkk ak say lépp chaque at ñu fekk la fi ngeen koy màggal waaye saa suñu ñëwee rek fekk changement ndax yëpp day gën yaatu yëpp day gën a euh, bëriwaat macha allah xéewal gi gën a yaatu bu baax. waaw lépp ci engagement bi ñu jël la rek dëgg yàlla mu donc euh, initiative bu bu nice bu neex wax dëgg yàlla. waxuma waaye groupement li ñu regroupé woon nii rek dafa neex toog kaf waxtaan di togg di joxe macha allah dafa neex wax dëgg yàlla dañ ci ànd ak mbégte. di ñaan yàlla tamit diñ kàttanal ba chaque année rek mu gën di yokk ñu gën di def lu lu euh, kawe suñu jot daal incha allah. waaw lu nekk jaamu yàlla baax na waaye bernde da ca dàq ndax jox jullitu bu sa moroom jullit woor ba ngoon jot nga yëkkati euh, kii nga jox ko muy xéewal gu bëree bëri ñuy wër jàkka yi du ñu bàyyi jumaa yi du ñu bàyyi fépp daal di fa dem te jaamu yàlla bu ne ci neex nag bu ne baax na waaye nag joxe ñam dafa baax. loolu xol bu yaatu rek a ko mën te jullit rek a mën loolu aussi. waaw dëgg la dëgg la dëgg lépp li ko gërëmee tamit euh, mm-hmm. Laye Ndiaye. Mm-hmm. ndax moo ñu may euh, opportunité boobu pour bañ def. Mm-hmm. bees la dara dàqul togg ndogg di ko jox nit ñi wax dëgg lu neex la daal lu neex suñu xol la bég nañ ci trop trop trop di ñaanal Laye Ndiaye moom it ak euh, kiiwam équipe bam bi mu àndal yëpp di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla kontaan nañ si moom kontaan nañ trop waaw joxe ñam gis nga ni mu neexee ndey doomu aadama ci boppam dafa war a farloo loolu ndax joxe ñam dafa baax muy jullit baak leneen ak leneen doomu aadama mbindeefu yàlla joxe ñam togg ba mu ñor neex jox sa moroomu jullit boo xamante ne nii xam nga ne soxla na ko loolu vraiment jaamu yàlla dëgg la. wallaay wallaay dara dàq ko dara dàq ko neex na trop dëgg yàlla kontaan nañ ci lool lool lool lool. nga gis nit woor ba ngoon xiif nga jël ñam jox ko mu leer fii am nga foo ko jëlee dëgg yàlla kontaan nañ ci waa kontaan nañ ci trop soxna Ndeye ñu ngi lay jaajëfal euh, kontaan nañ vraiment kontaan nañ ci yéen ñi si déplacement beeg et tout dëgg yàlla merci waaw ñu jàkkaarloog suñu beneen yaay booy rek heure bi daaw ñu fekkoon ko fi di ko ñaanal gudd fan ak wér ak bépp yaay sama yaay ak yaay ñëpp di ziar képp ku nekk àdduna kuy dox ci kaw suuf ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm ak gudd fan bàyyiwuñu kenn ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak gudd fan yaay bu baax a baax. delloo sama doom. yaa ci jàmm bu maa ngi si jàmm bu baax. yaram bi. macha allah macha allah yal na yàlla xeb doon. amiin waay macha allah daaw ñu fekk la fi ñu waxtaan. ren ñu fekkaat la fi di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla bu ñu séddale dara sa ginnaaw ak sama yaay ak yaay ñëpp laay ñaanal ñu fekk la ci ñaar fukkeelu fan weeru koor wi sak at ngeen ko fi féete mm-hmm. xanaa sant yàlla rek macha allah ndax ren heure bii daaw ngeen ñëwoon fekk ñu fekkaat fa ren ñoo ngi sant yàlla. den ñaanal yàlla ndax déplacement bi ngeen déplacé ba ñëw fii. ñëw rek pour affaire jour jour ma Ibra Fall mi rek groupement Ibra Fall mi rek macha allah kenn amul seen fay. yéen a xam daal lu ngeen bëgg na ko yàlla defal te lépp nag lépp laay njaay la ndax bu ñu fi amee waañ ba tegul na fii lépp daal moom la macha allah te xale yi ñoom nday mi dañoo neex a boot lu xew ci kii dañoon ma taan kumba li taan kumba la bàyyiwul dara def def na bu mat sëkk lu def mu tegu tegul ma taan kumba la kaay def na def xam nga loolu rek macha allah sant yàlla si la bokk mhm. ñoo leen di ñaanal yàlla daal yàlla defal jàmm te lafal leen cat yokk seen mën-mën bu déewoon ñëpp ñu fekk kenn bañ ci manqué ci kàttanu yàlla jëm rasulullaay ñoo leen jaajëf yàlla defal jàmm kontaan si yéen nag macha allah